bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim sama borom ci suuratu yusuf aaya 111 dafa ne yonantu alayhi salaatu wassalaam laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ñi ma nettali ci ay xeet ak yonant ci temps yu yàgg yi am jot taxul waaye bëgg ñi am xel xalam la tey nag mbokk yi ñu ngi bëgg ànd ak yéen waxtaanee lëf ci jàmbaar gu nga xam ni bokk na ci ñi yàlla defal zikr lil aalami bokk ci ñi gën a mag ci fuqahaawu xeet wi ñi ci gën a mën a jaamu yàlla ñi ci gën a dëddu àdduna ñi ci gën a sàmm ñi ci gën a ragal yàlla di ko xam ne ba mu xàmmee ban loxo mooy ndeyjooram ak ban mooy càmmoñam ca la sosu ci topp yàlla ca la feral bakkanam labal ko ci géeju ragal yàlla di ko xam ne nag ci làmmeñu jamono mën nañu wax ni mi ngi graduate ci université bu Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud di àndandoo ci àndandoo yu mag yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi bëgg a waxtaanee ku ñuy tuddee Rabi' ibn Khudayb di taabiya yi xam ni sëriñam di abdullah ibnu masud bés nee na ko yaa aba yazid law raaka rasulullahi sallallahu alayhi wa la ahabbak wa ma raaytuka illa dakartul muxbitin mu ne ko yow aba yazid bu la yonantu wallahi dina la sopp mu ne duma la mësuma la gis lu dul ne yaa ngi may fàttali eh, jaamukatu yàlla yi toroxlul seen borom mbokk yi bëgg a waxtaanee rabia xajul ci jamono waaye nañ jël rekk ci dundam juróomi walla juróom benni taxawaay bu njëkk bi mooy ni mu daan wëttoo lu xaraam ni mu daan wëttoo lu xaraam te xam nga yi yóbboo nit def lu xaraam bari na waaye bunt bi ci gën a gaaw gaaw a ba xaram dugg mooy lu ñoo tuddee bët ak bëri fu xool yàqalee jaamukatu yàlla jële ko fa mu toll woon ca yàlla tàbbal ko asfala saafiliin ak bëri bu xale lu góor walla bu jigéen bu sosu ci topp yàlla gis tàbbal ko ca la mu warul a tàbbi ak bu bëree bu nit defe ñaawteefu njaalo te la koy indi mooy gis ne ñu bët mooy seetu xol su bët gëmmee xol gëm bànnee xam damm ak na mën a mën su bët booyoo xol booyu bànnee xam booyu ak na mën a mën boo defee yooyu soxlaal ko su ko defee muy musiba su ko deful it muy musiba ndax soxlaal ga mooy tax euh, bëtu xolam dootul gisati àllaaxira dootul xalaatati yàlla mu tax euh, asalafu saalix daan xaabaabal wala di exagérer ci gëmmu seen bët ngir wëttu fitna ba ca mën a juddoo ku mel ne rabia nag neenu jigéen daana dana ko romb foog ne dafa gumba groupe jigéen bés romb nañ ko gis mi ngi njatt boppam mu jëm ci dënnam ba ñu foog ne dañu gumba ñu ngay ñu ngaa muslu ci yàlla ne ay waay yàlla nañu yàlla musal ci jàngoroy gumba pour ñoom góor gi ñu romb bëtam dafa sëgg bés ñu laaj ko ne ko Rabia lu tax doo toog ak nit yi ci mbedd mi waxtaan mu ne ko dama dama mu ne dama ragal e, du ma mën a bàyyi sama xel ci ñuy nuyoo yépp ba fay leen ma ragal sama bët du ma ko mën a gëm lan lañu rabia di jàngal mooy bët dañu ko abal te ku la abal gët fa neex nga war a xool ñaata ci ñun tey ñooy xool lu ñu neex ci marché yi ci film yi ci internet yi ci mbedd yi ci ci ci leçon boobu ku ne war na ko jàng ci ñun rawatina ku nga xam ni métier dafa am relation ak taseet nit ci ñaareelu taxawaay ci dundam mooy istigaaluhu bi uyubihi an uyubil axarin moo di la yàlla wax ci alquran ne walladina hum an illaghwi muridun ca suratul ñett rabi dafa bokk ci ñu ko traduire en moo di ëyibam def ko doy wëllis muy soxlawoo ëyibu keneen mos nañ ko wax ni ko lu tax mosuñu la gis nga ñi nit mu ne man kontaanuma ci sama bopp bay mën a ŋàññi keneen di mu ne nit ñi dangay gis ñu ragalal euh, jàmbur yi seen bàkkaar wóolu ñoom seen bàkkaar seen bàkkaar yi bopp seetal loolu bés bu set ñu toog ñu ngi ci internet ñu ngi ci club ñu ngi ci néeg bi ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ci boutique yi ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci sax jàkk yi naan li diw def li diw wax li diw mel fàtte suñu ayibi bopp laa ilaha illa allah muhammadun rasulullahi alayhi salatu wassalaam benn mbokk ñëw na seetsi ko di wax ba tudd diw jëw naka la jëwee rekk rabi ni ko aqaatalta ruum ndax mos nga xeex ak eh, yéeféeri ruum yi nga xam ni ñu ngi dal ci jullit yi ndax mos nga participer ci benn xeex contre leen mu ne déedéet mu ne ko Faris nag mu ne déedéet mu ne ko ruum ak faris mucc ci yow te sa mbokku jullit mënta mucc ci sa làmmiñ jógal loolu it ku nekk ci ñun mën na ko roy ku nekk ci ñun mën na ko roy mooy la xasanul basri waxoon waaj juróom-ñetti palaatu lekk nga lekk ko ci kër jàmbur denc ko ci sa biir benn kàddu boo fa dégg mu wax ma mënoo ko denc bugguma ko dégg jógal ñetteelu taxawaay mooy li yàlla wax ne wal kaadimiina al gayz wal kaadimiina al gayz wal aafiina an innaas moom def ko pratiquer ci dundam mooy ñi nga xam ne e, bu mer excès ni ñoo wannee tibb ceeb lañ ko wannee bu bakkaar ñëwee non seulement dañu ko sutura ba duñ ko feeñal waaye dañ koy jéggale bu mbon ñëwee ñu fayoo mbaax boobit taxawaay bu am solo la ci dundu Sayyiduna Rabia bés ci jàkk ji ñuy julli naka lañu liqaamee ba ilimaan ji war a am ku nekk ci ginnaaw ne ko puusal ci kanam Rabia eh, di puus waaye gisul place mu taxaw ki ci ginnaawam rekk daal di ko dóor ci doxam xam naa ku xaw a am waaw tempérament la xamul ne Rabia ibnu Xuzaym moo ne ci kanamam lu ngeen foog mbokk ne moom la Rabia def xam nga kilifa gu toll ni moom ñu dóor la dóor boobu ci diggu mbooloo te defuloo dara ñu doya dal la te ngay kilifa xam nga mën na am sentiment wu fayu waaye fekk yar ga mu yar boppam mu gestu ne ko raximakallah raximakallah yal na la yàlla yërëm yal na la yàlla yërëm naka la ko góor gi xoole ndeke rab yàlla mu jooy ba kenn xamul ñaata euh, euh, euh, quantité ci rongañ la génne wax nañ ni bés dafa jënd fas fas bu cher boo xam ne lu mat fanweeri junni ci seen franc yu yu yu yu am valeur yooyu la la ko jëndee tey mënoon nañ wax ne mooy oto yi gën a bees ci jamono fasu xare la ca la daan xare fi mu nekk di julli yeew fas wi yónni xaleel bi nga xam ne moo ko waroon a xoolal fas wi sàcc ñëw yeewi fas wi mi ngi janoog moom waaye mu continuer jaamu yàlla bi xale bi ñëwee ne ah lu xew mu ne ko dañu sàcc fas wi ne ko te ngay xool ki ko sàcc mu ne ko yasaar booba maa ngi waxtaan ak sama borom te sàcc waruma mën a soxlaal ba ma bàyyi waxtaan ngi maa waxtaan ak sama borom daal di tàllal loxom ne allahuma innahu saraqani walam akun li asriqa yàlla kii de sàcc na ma man de duma ko mos a sàcc su ma amoon sax occasion doonu ma ko def allahuma in kaana ganiyan vadi su fekkee ni eh, woomal na dënga tax mu di ko def yàlla na nga ko jugal wa in kaana faqira su fekkee dafa ñàkk nag ba soxlaa tax mu di ko def fa arne yàlla na nga ko may lu mu sutur law ba dootul sàcc mu ñaan ñetti yoon ñaan gi seetal loolu am na ci ñuñ koo xam ne bu ñu sàccee sagaru mbaxana dana saga àdduna yépp waaw dana rëbb ko ko sàcc dana ko nangam mën na dem ci jàkka ñu sàcc dàllam boo moytuwul ci lay mujj dem jàkk yàlla nag wala tastawi alxasanatu wala sayyaala wax idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim wa ma yulaqaa illa alladina sabaru wa ma yulaqaaha illa du xawdin azim ñeenteelu taxawaay mooy rabiu yathbutu amaama igraai nisa xam nga nekk ndaw dàq ci góor ñi jigéen ñëpp bëgg la yemuñu ca ñu di la sàkku nga mucc ca yombul ah, moo tax yonentu boole ci juróom-ñaar yi mu wax ni ëllëg bu ñëpp di yëg tàngaayu yombal xiyaamati duñ ca bokk ña ca suufu keru yàlla mooy koo xam ne jigéen ju am taar am position sàkku na ko mu ne ko man ragal naa sama borom inni axaafu llaha moo gënoon a rafet ci ñoom jamono nee ñu bu ko jigéen xoolee daanul mën a bouger ti du ko mën waaw ah, dootul it mën a contrôler boppam jigéen ñi laa wax de buñ ko xoolee dootuñu mën a contrôler seen bopp ndax taaram wax nañ ne daan na jël sax eh, malaan di muur genn wàllu kanamam ba du fitnaal jigéen ñi te booba fanweeri at rek la am te dëkk ba mu nekkoon di kuufa bëri kàccoor ni mu baree fu nekk nga xam ne ñoom seen yitte mooy yàqu nañ war yàq ñi ci des yëpp mooy seen yitte li xew fu nekk tey bu ñoo tudd franc ni buñ leen bàyyi ñu dikk Euh, Sénégal ndax dañuy yàq jikko yi dañuy yàqu nangam ma ne leen ñun dañoo te par dañoo perte de wala dañoo tardé ndax franc-maçonnerie li mu waroon a yàq Sénégal def na ko bu yàgg ñun kay ñëw toog rek di xaar euh, xanaa ku ñu doggale waaye ñoom ba ñu duggee Sénégal du tey yal leen yàlla génne génne seen yàq waaw fu ne ñu fa ci àdduna booba koo fa waaw noo noo noo foog ne yàqoon na ko rek romb na ko. groupe ci ñoom fay benn jigéen boo xam ni moo gën a rafet ci kuufa ne ko junne dinaar a ngi nii pour lan ñu ne ko fóon bu fóon benn fóon rekk ci rabia ci rabia mu ne dinaa leen may loo lool dinaa fexe ba mooy loo ko boromam ci njaalo ndax kañ ko jox rafet na kay waaye taxawaalu kat la mu fekk rabia ci néegu xalwaam rek mu summeeku wan ko léppam waaw rek rabia rabia xaacu ne ko ya amatallah kayfa biki ida nazala malakul mawt fa qataa minki xablal watin ay yow jébéru yàlla bi nooy def ak malakul mawti su agsi woon léegi war a dog sa bu mu xol bi nga dee am kayfa biki yawma yasaluki munkar wa nakir bés bi nga xamee ne nakir ak munkar ñu ngi lay laaj looy tontu am kayfa biki in lam tatuubi yawma turmayna fil jahim soo tuubul ba dee nii ana looy wax bés biñ la war a sànni safaray jahim lu jiitu loolu ne na ko sax nooy def am kayfa biki yawma taqifiina bayna yaday rabbil azim foo noo gisee sa bopp bés bi ngay taxaw ci sa kanam borom borom bu màgg bi subhaanahu nooy def bu tubul ba bés ñu ne la ja jahima jahima ngi rekk ndaw sa yuuxu waaw ndeke rabia lal na mu dëddu daw ci la tuub keroog mujj dootul nelawati guddi dootul lekk bëccëg ma ngaa julli guddi ma ngaa wóor bëccëg lu sob yàlla ba mujj ñu koy eh, dàkkantale aabidatul kuufa ah ki dàq jaamu yàlla ci kuufa ña ko bëggoon yàq ne bëggoon nañoo yàq rabia waaye rabia yàqal nañu suñu ndaw sa boo tax ku nekk ci ñun na xam ne

waa suuf ñu réeral la ñu réeral la da foog ne rabia ñàkk bànneex moo tax walla ndawe ba mu ëpp walla mage ba mu ëpp moo tax lii ñuy yëg ñun yëgu ko déedéet mi ngi woon ci âge bi góor di gën a yëge boppam muy fanweeri at ak ragal nga ca xol ba yàlla na juróom benneelu taxawaay ci dundu rabia mooy ragal yàlla ka bés bi mu war a taxaw ci kanam boromam mosul génn ci boppam nee ñu dafa gasoon benn xabru ci këram bés bu yégee ne xolam a ngi woowe mu tëdd ca ab diir mel ni ku dee banaan sama borom rabbi rjiun laalli amalu amalu saalih fi ma tarak ay sama borom delloo ma ngir yàlla rek ma mën a jëf benn jëf ju baax sax bokk xam nga képp ku xamante ne ngéej dellusi bu fekkoon ne baaxut mu baax bu baaxoon mu gën a baax moom nag mu joué rôle boobu fekk deegul mu ne bakkan bi xar rajaat xar rajaata yaa rabia dellu nga yow rabia bu ko defee nag loolu mu doxal ñu ne dañ koy gis ci fan ya ca topp mu jeexital trop ci jaamu yàlla ak ci farloom ak ci ragalam ak ci njàqare wax nañ ni jaamu yàllam yegg na ci guddi bu daan julli ndeyam daf ko daan mujj naan ko yow Rabia doo nelaw mu ne ko yow sama yaay ku guddee te bañ a fanaan àll doo mën a nelaw bu ñëwaan ba fekk ko fi muy jullee ak jooyam daan jooy ak fogg ni kanam gi mel ak ni muy tiitee lan ko xew sama ndoom xanaa dangaa rey nit mu ne ko wallahi yow sama ndey dama rey bakkan mu ne ko ana bakkan boo rey ana ay mbokkam buñ la gisoon ni nga mel ak jooy yi ngay jooy danañ la jëggal danañ mu ne ko yow sama yaay sama bakkan laa rey te mooy yàlla laa ko reyee mbokk yi ñuy wut àllaaxira foo leen fekk duñu nangu mukk ne not nañu seen bakkan ñu ngi ci siraa daa im maa anfusihim fu ñu toll rek gëm nañ ne seen bakkan na ma leen di woo ci mbon ak lu ñu baax baax ñoom it ñu fexe ba woo ko ci mbaax rek waaw ida lam ida lam tashgal nafsaka bil xayr chagalatka bi char waaw diggante bi amut soo soxlaalul sa bopp ci yiw sa bakkan soxlaal la moom ci musiba doomam dana ñëw fekk ko mu ngi ci foogam ak jaamu yàlla mu naan ko ay baay doo nelaw ñëpp a ngi nelaw mu ne ko innal bayaata laa yadaaw abaki an yanaam ragal a fanaan safara moo tere sa bàyyi nelaw bokk yi juróom-benneelu taxawaay bi te ci la ñuy eh, taxawee mooy sayduna rabia ak almuhafaza ala salaa fi l ni rabia meloon ci fonk julli yépp ci jàkk dem na ba bi nga xamee ne wéram mayeetu ko ko nga xam ni saqatwa shiqu daanaka mën nañ ko tuddee e, e, naka la tuddati para paralysé partiel bu daan dem ci jàkk ji ñaari nit ñoo ko lëng walla daf leen di lëng bu ko defee ñi mu bokkal eh, daara muy eh, taalibe Seyduna Abdullahi nga xam ni mook ñoom ñoo bokk fu ñu génnee nan ko yaa aba yàlla yombalal na la nag soo julli woon sa néeg mu doy mu ne wallahi xam naa li ngeen wax waaye dama dégg aji woote ji naan xayya alal falaax kaay leen ci texe ay kaay leen ci mbégte te képp ku dégg nag ñu ne la kaay ci texe nga wuyu bu dee sax dama ràpp war naa wuyu si ana tey suñu jeunes yi léeg-léeg ma tooñante quelques jeunes bu ñu demee ci gym ñu yëgati cent kilos ma ne ma ne ma ne ko yow yaa ngi dëkk fii ci wetu jàkk ji nga nga nga àttan lii te àttanuloo sa mbàjj fajar pour dindi ko ci sa yëgati ko ci sa yaram pour pour ànd ak ñun ñu julli ci ah, te ah, tooñ laa koy waxe wante damay gis ne dina jeexital ci eh, sama waaw sama xarit yi may tase ci ci bi wallahi doole kattan wér ah ndaw mooy yëpp réunir pour ñu dem julli ci ci jàkk yi waaye dañoo nelaw léeg-léeg ñun ba ba set musiba wallahi musiba bu jàkk ji soree tuuti ñu def ko prétexte lan lañuy wax bu ñu tasee ak Seydina Rabia mi nga xam ne mënatul doxal boppam dem ci jàkk ji waaye mënul dégg xayya alal falaax ba pare di jullee këram mais ñu ci mujj dundam dañ ko ne te ñu la wowal docteur mu ne may leen ma ma xalaat ci xalaat tuuti jàng laaya ja waadan wa thamuudan wa asxaab ras wa qurunan bayna dalika kathiran laaye jooci furqaan 38 moo ko terewul docteur ba mu fàttali ko ni Aad ak Thamud ak asxaabu ras ak génération ya ca seen diggante nañu bëggee woon ak nañu xememe woon ak nañu xëree woon ci àdduna te pourtant ay docteur a nga foofu ña feebar ak ña cay docteur yépp ne gisuma leen ñoom ñëpp dee nañ kon nag bàyyi leen mag yàlla seetal loolu nag bàyyi leen mag yàlla dëgg la ku feebar mën nga faju war nga sax faju waaye fa mu yegg ci mujj dundam xam na ko te it bu ñuy faju it nañu xam ne du faju wi moo ñoo faj waaye yàlla moo ñoo faj yàlla ñu yàlla may qualité yi mu mayoon Seydina Rabia te gërëmal ñu ko yóbbu ko ca gën jaa kawe jaal janna ca waaw HLM Seydina Rasulillah te may ñu ñu dajeef ak moom sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh